mbokk yi ñu ngi leen di dalal ak jàmm seen émission jotaay politique ngeen di ko topp si seen site d' général générale dakar midi point net di ñu suivre aussi seen plateforme dakar midi tv tey seen émission jotaay politique mu ngi daral honorable député Marième Badiane bokk si ñi xam ne mooy quinze député jaspora di teewal sénégalais ñi xam ne ñoo nekk fi ba Mali honorable ñu ngi leen nuyu honorable ñu fal député nga bokk si quinze députés yi xam ne yéenay teewal waa jaspora muy sénégalais yi xam ne ñu ngi extérieur tey jii lan moo war a nekk liggéey bi xam ne mën nañ ko xaar ci yow si jëm si sénégalais yi nekk Mali. maa ngi lay nuyu ba pare di nuyu spectateurs yi ñu seetaan lan li war a nekk suñu taxawaay gannaaw bi ma nuyoo waa Mali ak Afrique de l'Ouest Burkina Faso Guinée Niamey ñoom ñi nga xam ne ñoo ma fal tey ma nekk seen député su ma taxawaay. ci ñoom mooy jàppale leen ci seeni jafe-jafe surtout bi gën a bi leen gën a soxal tey mooy ñu dimbale leen ñu am euh, bureau des passeports au niveau de l'Afrique de l'Ouest parce que am nañu ay jafe-jafe passeport te balaa ñu jee il faut ñu yóbbu fii des fois dañ ciy toog ay une de deux seen liggéey di yàqu loolu daal nekk na jafe-jafe yi nga xam ne moom laay gën a taxaw ak ci yoon wi tey booy dem euh, tracasserie policier yi poste boo taxaw dangay fay poste boo taxaw dangay fay boo xasee ba génn Sénégal poste boo taxaw da di nga fay 1500 wala nga fay 2000 ba keroog ngay yegg nekk na ay jafe-jafe yoo xam ne sonal nañu am na itamit ci au niveau des ambassades ambassades yoo xam ne tey amuñu ay consulat ñu buggoon ay consulat au niveau de l'extérieur loolu daal mooy jafe-jafe yi nga xam ne bëgg nañ ñu taxaw ci bëgg nañuy tamit gouvernement yi di ñu gestu di jàppale Sénégalais yi li nga xam ne ñoo nekk ci extérieur bi ak ku ñu mën a ne bëgg nañ ñu di leen taxaw. nga wax léegi ba tudd maanaam euh, mooy tracasserie policière wala douanière tey ji euh, ñu génne temps yi passé gis nañu benn forum boo xam ne loolu moo ko taxoon a jóg si président Macky ak euh, président Moustapha e e boo doon jox benn yóbbante wala benn woote boo xam ne da koy def si diggante Mali ak Sénégal si frontière yi lan mooy doon sa message. moom message bi may def daal mu taxaw ci tracasserie policière yi parce que vraiment sonn nañ ci. léeg-léeg nga gis koo xam ne des fois dangay dangay am sa papier yëpp daanee noonu surtout maintenant ñu ngi carte d'identité CEDEAO waruñu woon a taxaw fenn di fay mais poste bu ñoom dañuy fay poste bu ñoom dañuy fay des fois nga gis koo xam ne kii xaalisam jeex na dootul am lu mu fayee alkaati yi wàcce ko mu perte biyam yendu fa wala mu fanaan ko bu xëyee ne ko demal du am lu ko yóbbu day obligé oto bu romb mu taxaw di la ñaan ba keroog muy amee bu ko indi ba dafa métti loolu daal mooy li nga xam ne maa ko ci interpellé di ko interpellé aussi ci bureau des passeports yi ma wax kooku nekk na loo xam ne lii vraiment nekk na suñu jàmbat ñun sénégalais de l'extérieur soxla nañ ko topp Hmm. léegi booy wax au delà yoo xam ne ay loo xam ne si frontières yi la nekk si diggante Mali ak Sénégal si biir Mali par exemple sénégalais yi fa nekk ñoom nan la ñuy dundee yenn jafe-jafe xam ne ñoom ñu koy ñu koy jànkuwanteel chaque jour. ci biir Mali jafe-jafe yi ñuy jànkuwanteel euh, loolu ci suñu diggante ak Sénégal xëy na mais au niveau du Mali gouvernement malien vraiment ñun bu ñu nekkee Mali dañuy mel ni ñu ngi Sénégal bii ñu dëkk. jafe-jafe nag bi nga xam ne moo nekk mooy sénégalais yi nga xam ne dañuy jógee Libi di ñëw Mali la ñuy wàcc euh, léegi-léegi tamit ñu jógee Algérie ñëw Mali la ñuy wàcc bu ñëwee dañuy obligé toog fa euh, pour mën a am daal lu leen indi ñu doon demandé daal suñu mënoon di jàppale ci loolu ba xam ne sénégalais bu wàcc ñu aide na nga mun a am loo xam ne nii da nga koy ko soit nga toog fa liggéey wala bu fekkee ne dellu si moo la gën nga dellu si loolu daal nekk na jafe-jafe boo xam ne am nañu ko bëgg nañ ñu tamit ñu jàppale ñu ci formation professionnelle yi ndax ñu mun ñoo dimbale ci ay financement am na it ay financement rapide ñu dimbale ñu ci ndax ñu mun a seet lu ñuy suqalee sénégalais extérieurs yi nekk Afrique de l'Ouest ñu suxalee sénégalais xam ñu dimbali leen tey sénégalais yi tey jii bu ñuy wax chaque jour ñu ngi koy gis fépp ñëpp di wax ne dañu dañu xaw a sonn wala nguur gi seen politique xaw na des tey jii yow lan nga gis ne tey jii moom moo xaw a moom moo xaw a défaillance am défaillance si seen comme si mouvance présidentielle nga bokk. ci suñu politique a am eh, président taxawal. nga nga nga nga nga xool Sénégal émergence bi xool financement yi muy def ci ci ci biir réew mi di ko def ci biti réew mi ñun ñu dénk ñu madame Mbacké mu di ñu financé normal man li ma gis mooy ñun vraiment sénégalais yi fa nekk ñu takkaayu ku ci jotati financement liggéey bi nga war a liggéey remboursé ñu financé ñi ci des ñëpp liggéey loolu daal gis naa ne ñu ko defee dina dina jàll gis naa ne it góor ñi war nañ leen a jàppale ci financement ndax ñun ñi dem extérieur yëpp suñu jëkkër ñoo ñu yóbbu ñu ngi liggéey nag naam mais buñ financé góor ñi dina baax lool ndax ñoom ñu liggéey seeni euh, entrepreneuriat mën a dem ci kanam ndax góor ñi nekk Afrique de l'Ouest yëpp ci secteur informel bi la ñuy wéy buñ leen jàppalee ci matériel baax na buñ ne luñ leen mën a jàppale daal baax na mais ñu gestu leen jàppale leen gis naa ne politique boobu bu ñu ko defee dina tane ci biir Afrique de l'Ouest. Hmm. honorable nga bokk ci APR Alliance pour la République hmm. nekk tamit ci benn Bokk Yaakaar tey yéen yéen am majorité ci assemblée nationale hmm. est-ce que tey jii li ñu di wax ne tàccu geek toog di seetaan est-ce que tey jii yéen euh, xawu leen ko wane parce que bu ñu gisee rapport yi ñu doon wax ay publication rapport ba léegi assemblée wax waxuñu ci parce que te majorité benn Bokk Yaakaar joo yor. Euh, non li ñuy wax man mën ko ko d'accord dañuy nekk ci ay commission dinañ nekk daanaka commission un mois wala deux mois ci biir di liggéey dañuy xëy des fois sept heures ba minuit des fois une heure du di liggéey ñi nga xam ne ñoom show la ñuy def dañuy nekk ba plénière jot ñu ñëw def seen show génn ci biti jege journaliste yi coow yuuxu wax. mooy maanaam comme maanaam opposition bi mais liggéey bi mu ngi ci biir te ñu ngi koy def ci biir. mais opposition bi ñoom ñoom parfois ñoom yi ñu wax par par exemple publication rapport loolu loo xam ne constitution Sénégal moo moo ko dogal. publication rapport ñu koy wax ñu ngi taxaw déjà président yi oote nañ conférence réunion des présidents buñ ci génnee buñ ootee euh, plénière dinañ ci waxtaan mais nag opposition bi xam nga lu ñuy def duñu liggéey te ku liggéey ñu taxal ko suuf ñun. suñu président am nañ ci moom confiance ndax li tax ñu am ci moom confiance euh, am na programme bu muy wone ñoom nag amuñu programme luñ mën a def yuuxu ci biti jaxase paqal li muy def suuf wala ñu jéem a jaxase population bi ak suñu président mais bi gis bokku ci projet yi mu ngi fépp mu ngi mu ngi fii Dakar mu ngi ci yi village yi sax mu ngi tey boo duggee ci village yi di nga gis village yoo xam ne yi région yi yóbbul leen dara ndox maa nga fa courant baa nga fa lépp nga fa. projet yi mu ngi fépp mais gis nañ ne fan yi fan yi euh, lu demee ni njàng mi. Mm-hmm. xaw na tax suuf lu demee ni tamit comme kii bi nga doon wax léegi ndox mi. Mm-hmm. am na si dëkk yu bari yoo xam ne si Sénégal ñu ngi doon wax si wàllu ndox te ci est-ce que loolu nekkul benn défiance boo xam ne opposition bi foofu dañ fay am droit tey. Euh, ci man li may wax mooy damay woote di woote au niveau euh, du gouvernement président euh, ministre de l'éducation nationale ak enseignants yi ñu toog waxtaan bu ñu waxtaanee dinañ trouver terrain d'entente mais opposition bi li ñuy def di génn di wu di coow du maye dara nañ toog waxtaan trouver terrain d'entente bu ñu waxtaanee buntu dina léegi ñu jógee si président ñu jógee si législative jëm tey lan yaakaar ne président Macky Sall bu ñu gisee ne législative a wàcc tey lan nga gis ne moo si jàppal si si askan bi man gisuma ne gars yi dañ ñoo dóor dèjà wax naa la ko gisuma ne dañoo ñoom ñun dañoo wàcc man gisuma ko wax naa la ko sànq dañ leen dóor bu ñu leen dóor doon ñun duñu am majorité bi ñu am assemblée nationale. mais majorité non noonu non gisuma loolu raw gàddu boobu nga wax gisuma ko parce que déjà ci région yëpp dañ leen duma ñun boo demee ci diaspora diaspora bi fépp ñun dañ ko gañe kon gisuma loolu duma ko mënuma nangu loolu parce que ñun dañoo gañe door a ñëw fii bu ñu gañewutoon duñ ñëw fii li nga xam ne nag loolu lañ war a def ñun mooy wàcc ci baas bi dugg ci terrain bi waxtaan ak nit ñi tegal leen programme président de la république ndax am na euh, programme te programme bi am naa yaakaar ne bu ko tegee wax koog nit ñi sénégalais yi dofuñu yuuxu rek ak lu baax nga ne baax lu baaxul mayul kenn mbooloo te sénégalais yi dañuy réfléchir xam nañ kuy liggéey ak ku liggéey te ñu wóolu nañ suñu leader. mais tey à quelques mois de la présidentielle est-ce que war ngeen toog ay programme fi mu nekk nii. ñun li ñu soxal mooy liggéey liggéeyal askan wi ba élection ñëw bu yegsee nag ba nekk ci campagne ñu génn li ñu war a wax teg ko. léegi daal kon yéen dañuy defar bilan campagne. ñun daal dañuy liggéey. bilan campagne ngeen. dama ne ñun dañuy liggéey ci liggéey lañ toll fii mu nekk nii ci liggéey lañ toll. tey jii léegi bu ñu ko jëlee foofu lu dëkk si organisation élection yi ministre de l' intérieur Aly Ngouille Ndiaye def na keroog loo xam ne ñëpp dañu ko doon ñaaw la opposition bi buñ ko mën a wax noonu ñu bañ a wax ñëpp tey jii lan moo si say lan moo si saxlaat mais yéen da ngeen a bëgg la dégg moom génn na wax la mu waxoon li opposition bi wax ak moom li mu waxoon ça fait deux parce que génn na indi li mu waxoon opposition bi nee naa la loolu lañ fi nekkee di gestu ku fakkastalu tuuti ñu yokk ko yëkkati ko ca kaw mais nag gàccee ngaa la ma ñi fi teg mët nañ ba duñ fakkastalu ba opposition bi di ko yëkkati di ko génne aali buy yaay génn na ba wax la ma waxoon mais loolu est-ce que nekkul benn avo par exemple bu wax na day jox raison opposition bi ñi xam ne dañu doon biaisé euh, vote yi si législative yi ñuy wax ne Aly Ngouille Ndiaye di inscrire d'abord ñoo xam ne ñu ngi si APR inscription mu ngi door a commencé démb ñoom dañuy gént di wax démb la ñuy door a commencé inscription kon kay ñoom dañuy gën di wax léegi ñu commencé nañ nañ xaar ba xam ndax dañuy inscrire euh, mouvement mouvance présidentielle ba pare wala déet déjà démb bi ñu commencé parti yëpp fa daje au au niveau du Mali oo nañ ma téléphone man parti yëpp fa daje démb def seen réunion démarré nañ tey seeni inscription te parti yëpp fa nekk ñuy inscrire kon xaajale wuñ seenale wuñ opposition bi. nañ bàyyi di wax loo xam ne lii dañuy génn di wax wala ñuy wax lu leen leerul ñu ngi liggéey dans la transparence nga wax léegi ba tudd transparence ak bonne gouvernance tey jii ñu gis ne tëj nañu maire de Dakar Khalifa Sall ñu teg ko si loo xam ne par exemple bu ma ko doon wax si justification bonne gouvernance lan moo si tey sa kàddu loolu suma kàddu mooy na gaa bàyyi di wax na am procès politique xam nga caisse d'avance ñu wax la li ci nekk nga xam def li nga def ko ba ne projet politique ñu waxaat la nga ne ñëpp ko doon def ma def ko bokk ma ci moo gën ñëpp ko doon def ma def ko xam nga tey bi jugement bi demee ñu bëri ñu yaakaaroon ci population bi ne procès politique la xam nañ léegi ne neexul ba neexul Xalifa def na kon nag def na nañ bàyyi jugement bi mu dem ñu bàyyi justice def liggéeyam bu fekkee ne dara amu ci ñu bàyyi ko bu ci dara amee ah mu xam ne coupable la. ñu xam ne coupable la mais est-ce que tamit Khalifa Sall benn ragal boo xam ne yéen waa nguur gi waa benn boo ko yaakaar bu waa présidentiel day am benn affaire boo xam ne xaw a ragalee xel. Khalifa Sall ragalee wuñ ko xel luñ koy ragalee Khalifa Sall euh, Benno Siggil Sénégal ko fi tegoon ñun ñoo ko fi tegoon ñu dem élection mu gagné jël mairie. kon xalifa ñun waruñu ko ragalee xel lan lañ koy ragalee opposant la ñun ñoo fi nekk tey bés buñ jeexalee suñ ñaari mandat parce que nag élection yi dañ koy gañe kuñ jeexalee suñ ñaari mandat jàkka jaamu ku mu neex boo ñëwee nodd honorable ñu ngi lay jaay fan la moo nekk sa dernier kàddu suma dernier kàddu mooy di leen gërëm di leen sant di gërëm ñi may seetaan di gërëm aussi waa diaspora ndax tey fu ma yegg si rek gannaaw yàlla ñoom la kon maa ngi leen di gërëm di gërëm ñaari honorable député yi nga xam ne ñoo fi toog muy honorable Fatou Sène ak honorable Binta Seck maa ngi leen di gërëm di leen sant mbokk yi mu nekkoon euh, seen émission jotaay politique tey ñu doon dalal honorable député Marième Badiane bokk ci 15 euh, jaspora di teewal waa sénégalais yi xam ne ñoo nekk ba Mali ñu leen di jox di daje seen beneen émission jotaay politique euh, sur dakar midi point net